Faïda Tijaniya hein, s'est réalisée. Alhamdulillah. Assalamu euh, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu les spectateurs et les spectatrices Tijaniya point com ñi ngi am mbégte ak kontaante ci daje giñ daje ak alaaji Mouhamed Jimlo l'Imam. imam asmaahulahi husna ñin waxtu bu nek rek ñu ñaanako ko yalla yalla na yàlla defal ko tawféex bu jot muy jall ci Fayda Tijaniya ñu ko koy ñaanal yalla yalla guddal fanam te yokk wér bi jaahi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi ñaan ñëpp daal ñu ñaan ñu ko yàlla yal na yàlla defal ko jàmm may ko wér ak gudd fan. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di ziare di leen nuyu di leen ñaanal bàyyi soxlawul ñaan waaye ngeen dolli ko ñaan di ko ñaanal di ko ñaanal njabootam ndax eh, jëmm la joo xam ne jëmmi xiwal la. jëmmi yërmande la bu leen ko fàtte mukk di ko ñaanal bu leen ko fàtte mukk di ko jox seen hàddiya yi moom lañu am mooy suñ leer mooy suñ yokkute mooy suñ sutura mooy suñ ndollal taalibe day dëggu nuyoo naa leen loolu maa ngi ñaanal njabootu baay gi yëpp yàlla gën leen a sàmm di ñaanal jullit yëpp góor ak jigéen mag ak fu ñu mën a bokk nag yal a defal ñëpp jàmm yokk leen xëwal tey ñu ngi ci ismullahil majid xam nga majid ci tur yu mag yi la bokk tey mën naa laa baaxee wala kon may jàng kii bi ba mu jeex dama naan aan boo ne quraan nga ne majid nga ne quraan ne karim nga ne quraan ne azim bon ñetti tur yaa ngoog ñetti tur ngi noonu majid azim këriñ doko fek fekk mukk ci du alquran bo ne harsh ne harsu yalla ba nga ne harsh momi itamen nga ne majid nga ne harsh ne xadim nga ne harsh ne këriñ mu ñetti turango yo xamna mbokam mbokkam mi xama noy def bo boole ko xama noy def ba ci ndigal waye li li nga xamne moy santu alquran di santu haras defena naa ñi bo ci jël te majid moy gën wàllu bo defé ñaar yoon majid 57 ñaar yoon rek mu jox la li mu saare alquran motax ñu ne quranul majid ne quranul azim ne quranul karim ñu waxane e al harsul majid al harsul karim al harsul azim bay sax bo demé bu fekkee sawar nga man nga dem ci téréem bobu kanjul masoon dang nga ko fekk bu gum ko ràbb rab ne ci quranul azim ak harsul azim ak yooyu ñaan googu moom xam naa ne boo doon téye ñaari tur yi wala ñetti tur yi di ko ñaanee tu euh, ñaan baay googu dara du fa des ñaan googu la dajale woon mag ña keroog Cheikh Ibra Fall radiyallahu taala anu Baye Ousmane Ndiaye radiyallahu taala anu Sëñ Aliou Cissé taala anu am na ñu ne Baye Mbaye Niass radiyallahu taala anu te ñii xam ngeen ne ñooy taaw taaw Baye nag moom ay mbiram yàlla moo ko ràbb dama wax ne baay mbiram mbir ilaahi la amrun ilaahi la alquran amrun ilaahi la salaatu fati amrun ilaahi la xatta yow mi bugg bàyyi sa mbir amru ilaahi la li may wax nag bugg naa gars yi dégg ko man nag ma ne almajid nag luxatan buñ ko waxee ci baatu luxa almajdu huwa sharafu wal maruatu wa shaqa buñ ne majd rek mooy ki xam teraanga famille daf ci am ñoo majd xam maroo am mooy mbañ rus xam saqaa moo tabe wallaahu yàlla almajiidu mooy aji tabe ji wallaahu yàlla almajiidu mooy original wallaahu yàlla almajiidu mooy ki tedd yaddul dana tegtale ala ihsaan yi nit bu tabee ba tabe ba tabe di maye di maye di maye ba sax ay doomam ñoo continuer ñoo ñu baytu maj di ñu ngi ñuy néegu teraanga wa ifdaal ak ngëneel sharif foo fekk ñu ne insaan sharif la rek si bisaatihi jëmm ja moo tedd aljamil ku rafet ca jëf ya mooy rafet jëmm ju rafet jëf ju rafet moo gën jëmm ju rafet boo boolee ñaari nag moom pare aljasilu lu bëri xattaa woo may ga may gu bëri ku ko saqoo bañ xam ne may ga sa may tax kooku mooy ma jiit albaaliqul muntaha fil karam ku yegg ci dayoo tedd nga rek yow yaay ma jiit baax baax ba àgg ci fi baax xam comme li ñuy wax baay benn góor mosoon na ko wax mune ne bàyyi bawul gay yi ne tek mune ah ñu ko yow li nga bëgg wax fu ne de mu ne fa gën mo gën ñop waaye parce que ciofel nak léeg-léeg fof la hegg ci nit moo tax yàlla bu rek na alqur usqaf na wal qur'an al majid gëñ na ci alquran ji gën na tedd ci li yàlla bind al sharif wal majid li kasrati fawaidi yi lu mbeuri ba bëri ko ko don taxo nga xam do jeexal dara de kana nga bañ a ni man téye ko tay ba mu yàgg suba nga bàyyi gannaaw suba wa ismu laayil majid 57 fo julé def ko 57 looy soxlaati sa aduna bala nga am fukkat ci kanam de lepp lu ñuy wuti dana nek sa rom le mako joxe fi ci carte ni yalla te am ci ndigal nag bu baax li kasrati ma tadamono lim bëri lim lambo dafa bëri batu majj mi ne ci xam-xam wal makarim ak teranga wal maqaasid ak way al ulya yu gëna a jublu way yu kowe xol ko xam xalal bane ne gàññ bu kawe nekk président jubluwaay bu kawe mbooloo mën a jiitu fa jumtuwaay euh, jubluwaay bu kawe la loo wuuti xam ko jubluwaay bu kawe la yar say doom ñu baax jubluwaay kawe la yor say taalibe ñu baax jubluwaay kawe la wuuti xam-xam xam ko jubluwaay kawe la wala ismul majid daan ismul majid ñoom ñaar boo leen booleen ak majid doog majid moom da ngay am parce que majid moom mooy 48. boo cay yokk euh, xaraf ya rek moom mu jox la loo xam ne kenn mosulu ko di 40 nga yokk ci 31 rek mu jox la lu ñu almaajidu moom it majiidu tamit moom it 57 la nga yokk ci xaraf ya muy 88 muy juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu tolloo xalim kon nag trois ngoog waahidun huwa taakidun li maanal xani ku xam ma xam ba desal ba soxlaatoo dara kooku la ñu wax majid tur waa ngi noonu nag dëggantaan majid bi maana sharaf trang majid bi maana xinaa koom-koom waxaatul habdi sansu jaam bi ci tur wi mooy mu nekk ci lim xam bu mu ko xeeb muy cay tabe ci jamil ahwaal mu ànd ak nag mu takkoo teggiin na takkoo teggiin ismu bàngoog ismu barke la ismu la boo xam ne ku koy siikar yàlla day laabal sa xol day laabal say jëf day laabal say warsak day laabal sa saayir day laabal sa baatin da lay dàqal yenn bànneexu caaxaan yi nga xam ne dafay yàq nit dafay yàq elalu nafs nafsu yu bëri mu ngi ci doomu aadama day garal day day musal day yàq doomu aadama euh, képp koo am feebar boobu ñuy wax baraj mooy yaram wi toog di def lu mel ni jibét yàqu ñaaw naqaree xool mooy mbas boo koy siigal yàlla dana la ci musal kep ko xamne da nga am gar lor lu la ragal nga fan yu wex arab euh, bés bes arab yi fukki fan ya ñeent yu ya moy bo nga dang ngahor Premier jël ben weer rek nga xoor premier ba ci 14e ba yeb nak fo julé rek jangal majidu 57 fo julé rek ba mu mat fukki fan ak ñeent doga ko def ñet weer muk muk muk muk da nga dem ba nga xamne ñu ne sa loxo boo ko tegee ci bopp ko feebar day wér eh, loolu lañu wax waaye boo koy xoor nag du jar nga xoor weex um, bu la neexee nga xoor fukki fan yi ñeent yëpp bu la neexee nga xoor bés bu njëkk ba ak bu mujj ba maanaam première ba ak fukk ba ak ñeent eh, bu guddi ga nag boo dogee nag nga nag looy sikatru woo fay noo yëpp raw bi isnillah bu fekkee dafa feebaroon dana wér wa kasaalika naafiun lil marat jusam ku am jàngoro ngaana yan nañ la musal tur wi rek moo ko mën a wéral wala am jaadin mutaqay wala nga am feebar yoo xam ne am root al mutaqay ay yoo xam ne dafay am ay dëtt waaye dana jëriñi tamit ñi am feebaru xol feebaru xol ñi ko am danay bori waaye nag ku ko jàng lim ba dëgg-dëgg secret ba mooy 99 gannaaw boo jullee suba daan boo ko jàngee 99 yaa ma jiidu yaa ma jiidu tafli ko ci say loxo tafli boo ànd ak euh, ndox masaa ko saxar xam eh, incha allahu yàlla dana la may trang ci sa dund da ngay nekk koo xam ne da ngay wegu te nit ñi dañ lay bugg ñi lay bugg nag buggeel gi moo gën a jafe ci bi may wax mooy sa mbokk yi lay gën a jege ñoo lay gën a bugg seen mbokk seen xarit al imam Mouhamed Jim Lo euh, moo del saatun ànd ak yéen ci fayda tijaaniya point com xale yi nga xam ne toujours maa ngi leen ay gaaral yéen jaam yàlla yi leen din dégg bu leen xeeb seen bopp te leen leen ñaanal tawfiq ak taysiir ci seen wér gu ak seen dund ak seen wërsëg ñaanal ma ko ñaanal ko samay doom da ngeen joxoon ma addiya bàyyi bu leen di xeeb addiya yooyu ngeen di jox bay bés bu nekk ndax ki mën da yegg garab gi dafa kowe yow mënoo yegg moom mi mën a yegg ba toog ca kaw di la daggal ci meññ mi di la sànni te meññeen mi ñu fi bàyyil kenn xamu nu mu ba maa ngi siis fan yi sax ca libi am na benn jaamu yàlla bu fa feeñ hubbi fa benn maktab tuddee ko maktabul izam li kutub cheikh al islam alaaji ibrahima Niass téere bi ñuy wax kaasiful albaas rek maktab boobu mool na ci ñeent fukki téere ak juróom yoo xam ne daf ko def ay dagg-dagg kon jëmm ngi noon doo xam ne du waxuma Sénégal waxuma Afrique waxuma nit ku ñuul waaye arab yooyu ñoom ñu ngi jëriñ ci ngi sant yàlla bu baax di santal xale yi di ñaanal ñëpp jàmm waaxiru daaw La de Tijaniya s'est réalisée.